ñetti at yi nga xam ni tëbal nañ ko kon ren ji 18e édition la ñuy wax muy 2012 2021 ak 2019 ñetti at yooyu lañ ko deful donc buñ ko defoon 18 ans lay doon ren. li ma ci bëgg la ma leen daan wax seen doole ak seen xalaat laa soxla mais bu dee lu koy def jàpp nañu sëñ Bara dañ ci jàppale ba nañ ko bëggee danañ ko defee noonu. bi génnee génnee ma Masseck yàlla na ko yàlla yërëm interpellé ma ni ma waaye li nga wax foo ko teg ma ne ko organisation boo bëggee mu dem muy dox dañ ci éviter affaire u xaalis ndax bu ci xaalis duggee ay cotisation fay man naa am fenn bu boobaa lañ koy tuddee détournement lay tudd te day yàq yëf yi mu indi ay teeseen te yàq yëf yi ma ne ko man bu may am na ci at moo xam ni sa njiil mi du ma bàyyi bi mu jàllee sama terrain Touba laa jaay 12 millions CFA faye ko pour ay bor yu ma toppoon te booba comité d'organisation bi kenn xamu ko ci waxuma ko ci kenn kenn xamu ko ci booba ñu ngi koy def ci saal bële mbir boo koy organisé te benn at boo ko dee defaat mën naa indi ay jafe-jafe ci nooy coordonné nit ñi ak nooy woowu nit ñi ay ak nooy fexe ba nit ñi daje waaye loolu fa tabaarakallaahu daluñu suñu diggante ak yéen kenn ku ci ne ci ñun ñi sant Mbàkke xam nañ li leen boole ñii samay rakk lañ ñii samay doom lañ ñii samay jarbaat taalibe yi it xam nañ ni ñoom seen sëriñ dañuy liggéeyal muy Cheikh Mamadou Lamine Bara journée bii nag Samba tudd na ko léegi Talla Diakhaté mais laa doon yónni ci télévision yi mën naa ni lu ci dul RTS direct la koy def te amu kenn ku ñu may ñaari dërëm seg yi ñu ko doon fayee mi ngi ak moom am na ñoo xam sax da ngay ñëw ci seenu mbaax ñu bëgg ni la noo sëñ bi bàyyi ñu def ko addi man leen non damay bëgg bu ngeen defee lu ma neexul ma sañ koo kaas bu fekkee nag fay ñu lu ngeen da ngeen di def loo xam ne mën naa am sax ñun duñ gënal te boobaa duñ ci mën a yëkkati suñu kàddu bàyyi leen rek ñu fay bu ko defee lu ci jaarul yoon ñun leen lii jaarul yoon ngeen mën koo rectifier donc bu dee ci wàllu communication daanaka li ñu ci waroon def lépp def nañ ko bu dee wàllu baas bi it waa xel comme baas ñëwoon nañ fi mais yàlla dafa dogal ñu xaar ma dañoo dem almet benn rendez-vous mais ñi ngi ñëwaat bu dee lu lu jëm ci ñoom it fa laaw loolu féete na boor amatul benn jafe à partir de le 6 la ñuy tàmbalee basse donc jàpp naa ne balaa le 19 danañ pare. te ni ñu ko bëggee dana mel noonu. journée bi nag ren ñu am ñoo xam ne dañ leen ci rendre hommage mën nañ cee ay kilifa yu yaatu lañ mën nañ cee tudd <coughs> Serigne Abbas bu Daaru Moussi tudd ci Serigne Moustapha Absa sëtam a ngi nii toog sëñ Modou Kara euh, baayam yabal ko muy sëñ Koso mu ñëw fi tur waa Daaru Moussi yëpp ànd ak euh, Thiam. jóge Daaru Musi danañ ci rendre hommage tamit sëriñ mustafa mu sëriñ sàmba danañ ci rendre sëriñ Abdoulaye Thiaw Laye danañ ci rendre hommage Baye euh, sëriñ Pape Malick si ñoom sax waa këram yu bëggoon nañu ñëw ci réunion bi waaye man maa leen nii nañ xaar ba prochaine réunion ñu doo a ñëw sëriñ Abdourahmane Fall Tilala moom day sama xarit yàlla boole nu mu nekkoon sama mag nekk sama wóllëre journée sëñ Baara mën naa ni 2004 cinq jamono yooyu yëpp amu ci benn année boo xam danaa ko def te du ñëw teew ci bu ngeen delloo ci archives yi wala ngeen den image yi da ngeen ko gis da daan ñëw di jël kàddu. ñu gën a góor góorgóorlu te xam ni bis bi bis la boo xam ni nit ñi bëgg nañ ko bàyyi nañ ko xel. ñun la ma daan wax rek man laajuma ci kenn un franc mali soxlawuma ci kenn di ci def dërëm. lii laa soxla buñ leen woowee ngeen ñëw def ci seen temps def ci seen doole li koy def lépp sëriñ Baara mi ñu koy defal mën na ko am na ko te gëm naa ni duñ ci seetaan ndax man ko tàmbalee ba léegi seetaan kon donc position boobu dañ koy réitéré waat di ko xamal bëgg nag ñu xam ni kenn ku ci ne ci yéen bu amoon bis defloo ma ko sëriñ Baara seere nañ danaa ko takkal bat ak yére ko jàppale ko ba bisam baax te duma ci seentu dara te sama mbokk yi nag gëm naa ni pas-pas boobu lañ nekkee. ren nag ku ne xam na ne bis la boo xam ne war na wuute ak bis yu yi nga xam ne weesu na ci xew-xew yi nga xam ne daana am fii ci foire bi ndax organisation boo ko tàmmee def li ngay jàpp ci sa bopp mooy pek nga lépp maîtriser nga lépp waaye bu leen fàtte ne année yi nga xamné ne na liggéey bi daana yomb naam daana jafé naam waye ku ne xam na ne ñaari at yu weesu am lu bari lu ko lu ko ci nit ñi waye lu ko ci walu ni ñuy organiser waye lu ko timit ci walum communication kon nak lolu fokk ñu bàyyi ko xel bu baaxa baax ndax organisation boko xamé xamee doo ko tiim ba pekk mukk bo wolu ci sa bop ndax lolu boko defé rek dañuy xamné yow kon euh, xëy na sa xalaat rek ngay démé waye deug deug deug li nga li nga li nga yor mënoo koo xamolu mu doon ren xam ku ne xam na né euh, kiñ ko tuddé euh, suñu mam Cheikh Anta ñom ñu ñu ñu ñu man ñu man ñu man seen ñu man ci bis lañu loolu amuñ ci amuñ ci benn sikk sàkk waaye ñun ci suñu bopp ñoo war a defaraat bu baax suñu toogaay ndax lu tax ma koy wax mooy ñëw réunion baax na waaye ñun li ñu war a def ñun duutu ñëw réunion euh, kese yam ci waaye dañoo war di sensibiliser nit ñi ci bis bi maanaam waruñoo toog fenn te waxuñu waxu bisu sëñ baara bi diiran li des ci journée bi ndax loolu moo ñuy may relance yi ñu war a def ndax ku ne xam ne toog nañ ñaari at defuñu ko relance yi ñu war a def looloo koy gën a yombal di waxtaanee bis bi di ci ñaax nit ñi di ko xamal nit ñi ba pare tamit di leeral nit ñi nag lan mooy dëgg-dëgg taxawaayu bés bi ndax li nga xam ne mi ngi ci ñu ngi ko ciy boole ci bokku ci ndax sëñ bas bi mu initié bis bi wax na ko euh, am na ci loo xam ne sax moom dafa baax rek ndax euh, bis bi moom ku ne xam na ne lépp lu ciy dem moo koy def ci mu mën ko ak mënu ko waaye nag li ma li ma ko daan wax rek da koy gën a man rek tey buñ ko buñ ci pare woon euh, di 19 war koo def ci beneen weer bi ci toppit da koy mën a def ndax ku ne xam na ne seen Baara ba mu fi jógee yàgg na ca njëkk sëñ Sidi Maxtaar di doon xalifa Cheikh mu Cheikhul am na lu bari lu ñu daan lu ñu lu ñu xam ci sëñ Baara ci bis bi lañ ko lañ ko xamee euh, xëy na bi sëñ Sidi Maxtaar ñëwee nag doon euh, xalifab Seexul Xadim ci la lu gën a bari gën a feeñ waaye avant loolu ku ne xam ne taxawaayu bis bi am na lu bari lu mu lu mu lu mu lu mu ci indi kuy waxal yàlla rek boo ko boo muy jàmbaar joo xam ne man wax naa ko ay yoon ci fii ñu daan ci jotaay man lu may li ma jaaxal bariwul. li may li may li may déranger tamit bariwul ndax man sëñ sëriñ Touba képp kese rek laa yaakaar ci yàlla rek laa gëm waaye moom mii defagul dara ci réew mi dina fi li mu fiy def ñëwagul wax naa ko chaque année mu wax ko te chaque année mu gën a feeñ li may war a def ci réew mi ñëwagul loolu ca kanam la ne.